rabbi sarax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu def naa mën ngeen wax ne wa innahu dama bëgg ngeen ànd ak man ne wa innahu la zikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusaluun sunu borom daa waxoon laay jooju ci biir alquran njàng mi déparé woon fukk niiru wut dem ba àgg léegi fukk niiru jamono di ko firi wa innahu la zikrun laka teraanga ci téere bi la nekk say bokk seen teraanga ci téere bi la nekk ba yomal xiyaam waaye nag sunu borom dana nu laaj sunu digganteeg téere bi loolu ci def noo ngi sant sunu borom baax mi nuy boole ci lii ndax nu am tuyaaba man nag bu bi dafa am leneen lu ci xew ndax gone gi mokkal Louga soxna si ko jàngal daa bokk ci ñi ma doon jàngal mbayang siise ba ma may ko mbër gu siise defe naa mi ngi ci jataay bi bu ñu ñëwee ne Xadija daa jóge ca daara ja jàng ba ma ko alxuraan nii bu yow ma defaat nii sama mbubb mantam yëkkati ca kaw Serigne Cheikh tey de daara béggati na ndax rasmu bi doon dem mi ngi dellu siwaat dellu si nag dellu si am doole ndax bi nu xoolee ecran bi di gis ñiy bind nañ koy bind ak fañ koy jëlee loolu xam nañ ne aar boobu alxuraan rek ndekete moo ko am yal yàlla fayal nu la nun nit ñi nag liñ lay faye waxoon naa ko daaw taabal ji ma tiim waa c 3 ñoo ko defar taabal ji gaa yi nekk moo ko defar taabal jee moo ko defar lii nii moo ko defar moo nun bu ñuy defar looti léegi fu nuy dem moom daal ku sa ku sa ku xoosoo ci kër ga yët ko C3S ku bëgg te aluminium bu du xumaag yët ko C3S ku bëgg am fer bu dëgër a dëgër yët ko C3S bu leen neexee sax boole ci jaay caaf ndax dana jar yéen ñi dawal seen oto it bu pënu bi xawee xoosu nañ ko C3S ma ca pënu ya C3S rek c rek encore C3S maa ngi wax nag ci turu sunu directeur Baye Omar Gueye ndax diggam ak c ñu s ñun day fi na doyal nuy taabal studio principal ba am na C3S de waaw kay <laughs> sunu studio ba am na taabal ja ca ndar am na taabal fu ñu am station rek c s def na fa taabal te nag émission bu may def balaa kenn déglu émission bi nga dégg ñu ne C3S moo leen di may waxtaanu fajar ak oustaz Alioune Sall kon nag li baas na da koy yokk ba mu nekk 4 s xam naa leen ñu fekk ko ci yàlla yàlla sàmm leen sàmm nu aar leen aar nu sama ñaan gi mooy yàlla na yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir defar mbiri c 3 ak ci liggéey yëpp ci def ci seen i poste dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.